fay naa la. ci loolu. waaw maa ngi jàpp mel ni boo waxee léegi gisante wuñ de dafa am benn mbëbu ne boo daanoo ku la gis da lay wax di courage waaye saa boo daanee félicitation dafa yokk ba kaw ngay amaat combat waaw yàlla naa koy dégg ba keroog may bàyyi bëri. mais kawoon dafa neex dafa am weccet weccet bu sew bi da doon wax dëgg. waaw c'est ndaanaan la ndaanaan booy bëri ndaanaan moom à chaque fois lamb day neex te su ma sañoon la ko ci ma sañoon chaque jour bi bëri amateur dañuy kontaan. ban adversaire nga gis ne tey soo bëree waat moom wéccit bu sew boobu génn keroog ci bërëb dina ñëwaat. mu dante wala Moussa Ndoye. ñeme nga lool. Moussa Ndoye mënu fu nekk teel a doy defet pour nga jox mu bañ. Ah, loolu nag war nañ cee wax. gars yi di bëri daan moom daanul bu nga bañ gars yi bu nekk dañoo bëri jël gars yi bu xale yi ñoom daanul ah daanul kon dañoo bëri ak ñoom. mais nga foofu tam nag Dame Sène. lam moom. am la yegg nga fa ku nekk na wane sa maa ngi wane sa bopp moom mi ngi bëri daan maa ngi bëri daan kon nañoo waaw. bañ ma loolu. bañ ma jël raay bi. mais fi mu toll dafa mel ni lu yomb waxatoo ci dara. non non laa moom lu yomb boobu ma ma naree bëri lu ma bëri lu métti mu jël yomb moo gën may. njëkk si lu yomb mujj si lu métti tey naka nga gisee Moussa Dioum moo jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Boy Jules nekk xale boo xam te ndaanaan la te dafa am moom tamit dafa xaw a saay saay ci bëri waaw Dioum de koo gis xam ne liggéey li mu war a liggéey parce que ñoo doon préparé ndoo di ko ñaan suñu borom suuraal ko may ko ndam ndax tamit la ndaanaan la koo gis xam ne liggéey la lépp lu lamb laaj mu ngi ci moom waaw kontaan naa la suñu dafa ko sori bu baax mu